tët tët tët wallaay man koor gi man ni muy tàngee man jaaxal na koor goo xam ne yàlla man ma dañoo waroon di may su midi jotee ñu naan potam ndox ah su cinq heures jotee ñu naan potam ndox waaye man de su ma ko jàpp foofu la man de may jàpp rek téen ak sota lañ ah kenn gisuma ah ah kenn gisuma kay damay naan rek koor ko dafa metti waaw man soo soo doo nga ma jaaxal nag soo nga xam ne moom loo def mu nett la waaye kon fii ci plateau bi laa indi samay bitéeli soo saa butéeli meew di naan wallaay laa siw ah, am na ko defoon ay kooku de ndeysaan jabar jabar jabar jaa ko jàpp ñëw ñëw ñëw ñëw làqatu yee yor butéelu soowam di naan daa mujj daa mujj jabar jaa ko séen ko séenee yàq yàq na ko jawar ko sax ndax may na ko ca mu naan lii ah ci koor lii xool xool dugal dugal kaa dugal ah kaa laa lay nit ñi ah soo jógal kaa kaa mbaa xam nga jàmm sant rek parce que soo tey dama koo yëg tey tey de benn moo gaañu fee benn téer téer moo gaañu fii ci pénc mi bi koor gi def na six mois la fanaan taal yaa rees ma daal di dee dayi la li soo fii fii am ci pénc mi soo soo soo soo may fàttali yow fi mu sama sama sama séeréer ba. ndeysaan allahu akbar mooy séeréer booba. démb laa dajeeg moom. ndeysaan ndeysaan mu ne ma mu ne ma jënd naa tunu macaroni. waaw fi mu ne kori ma ne ko yow te kori nga ne kori ngay xaar yow. yow yaa ngi woor. man waaw maa ngi jéem yow doo wóor ngay da ngay kii da ngay tarba mbaayu rek. di kii rek. di tallaxu rek di dem. moo gën co co co. wóoroo wóoroo naa dem ba seen kër wax. wóoroo soo soo koor gi sonn naa ma ndox ma naan soo. non bul dog. soo sonn naa. man damaa sonn man sama koor leen gi. Eh, soo.